Cheikh Latir Diack nga xam c'est un expert immobilier inscrit au tableau de l'ordre des experts national du Sénégal tey moom la ñu dalal bëgg seeg waxtaan ak moom sur la sur la thématique ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Latir Diack. jërëjëf ministre maa leen di fay bu baax di remercier ci li nga ma invité ci euh, euh, waxtaan bi nga xam ne dañuy waxtaan mbiru suuf ci Sénégal comme ça dinañ ci mën xëy na ñu bari leeral lu bari. loolu moo tax waxtaan yu am solo moo tax fi mu nekk li wax waa je reste à pour pour lu ñu mën a waxtaan ci suuf si rek. pour ñu mën a waxtaan ci li nga xam ne mooy thématique bi dégg nga léegi léegi li nga xam ne moom la ñu wax donc ñëwaat naa si li nga xam ne mooy thème bi donc muy les tenues foncières ak la loi sur le domaine national nga xam ne je pense que information bi jàllul à chaque fois dañ ciy gis ay problèmes entre la population moom moo la ñuy gën a gis mais aussi ak l'État lu waral à chaque fois ñu gis ay problème ci li nga xam ne mooy tenue traditionnelle ak la loi sur le domaine national. gis nga gis nga affaire problème euh, euh, ñuy wax toolu maam yi. dëkkule bu yeeg ñoom seen. Euh, lu ko lu koy indi lu bari moo ñàkk te nit tam du leen gindi ci lu li li li li rek lii organiser affaire suuf si. dañ koy bind ci làkk yoo xame ni ñëpp mënuñ ci jot te duñ ko expliquer nit ñi moo tax boobu ba léegi ngay gis ay nit wax ni fii sama tomo ñoom maaf maam ñoo fi nekkoon ñoo fi nekkoon dëkk ba léegi bon nag nit ñi te suuf nag suuf suuf suuf lañ ko jëlee moo tax beneen loi bu ñuy wax sur le domaine bu nekk en 1964 euh, ñu génne ko pour organiser suuf si réglementé comme ça du kuy ku yeewu rek jël nii nii yàq moom waaye ci bi ñu organisé loolu dañuy dañuy def loo xamee ni moom mooy domaine national loo xamee ni kenn moomu ko nguur euh, ñëpp ñoo ko bokk nation bi ñoo ko bokk mais ci ci loxo état lañ koy bàyyi bi ñu def loi boobu nag ci domaine national bi fekk nañ fi ñoo xame ni dañu amoon ay tool ay tool wala fu ñuy sàmmee wala fu ñuy fu ñuy defee seen loo xam ne day jëriñ ci seen euh, fi ñu dëkk ci village bi wërale ko noonu dañ ko doon jëriñoo suñ ko jëriñoo rek pour ñoom ñoo ko moom alors état bi nag bi muy bi mu commencé bi muy commencé organiser suuf si dafa ne ñooñu ñi ngi ñi ngi ñi ngi léegi li ñu leen may mooy li nga xamee ni yéen ko yor di ci liggéey di ci dundal seen njaboot et tout dañ leen may benn at pour ngeen dem ci fii ci ci ci ci ci ci impôt domaine pour ngi defal ko seen tur bi nga xam ne yéen a ko moom définitivement waaw su régularisé su ngeen toogee rek ba bi passé nag moomatu leen ko ñu ngi si ñu ngi si domaine national bi xam naa loolu mooy tax nag yenn saa yi ñu bari continuer ba léegi di wax ni ah ñoom ñoom moom suuf su nit ñee war fa def dara coow commencé man lool loolu rek la coow bari bi ci domaine national ci suuf si yëpp ñàkk ñàkk information rek la. donc information mooy mooy problème parce que li nga wax léegi dafa am dafa am solo ci régularisation ak ñàkk régularis régularisation kon boog mën nañ jàpp ne ñi nga xam ne ñu ngi def demande boobu noonu bu fekkee ne defoon nañ régularisation bi seen demande bi c'est légitime mais bu fekkee ne defuñu ko demande bi c'est pas légitime. ngeen li ngeen mayoon ngeen li ngeen di jëriñoo may nañ leen at pour ngeen dem régulariser ko mooy ngeen dem ci impôt domaine wax ni fii ñoo ko jëriñoo ci ci ci village bi ñu def ko seen tour comme ça léegi yéen a ko moom mais at boobu su weesoo defu leen ko dafay dellu ci yi nga xam ne ñëpp ko bokk moom mooy moom mooy moom mooy domaine national mooy domaine national ah si si non suñ koy régula suñ koy mooy dañ koy dañ koy def en sorte que ñu immatriculer ko seen ñu immatriculer ko seen tur def ko seen tur ñu xam ne ñoo ko moom parce que suuf moom pour ñu wax yaag moom foog ñu bind sa këyit boo xam ne ni kii monsieur Tall moo ko moom wala kii Samba Ndiaye moo ko moom donc soo ko moomee nag yaa moom droit ci biir kenn kenn amatul droit ñëw di dugg ci di fa def loo xam ne ni euh, neexu la. kenn kenn mënul jaar ci loolu noonu di def lu naka su du naka su noonu kon problème mu problème mu information la ak problème li nga xam ne mooy régula régularisation. problème information ñàkk xam la ak ñàkk ñu leeraleen ko ak nga dem. fi ñu fi ñu ko war a defee wa ñu wax fexe ba xam ni que lii yaa ko moom comme ça dañ koy protéger kenn dootul ñëw di def loo xam ne te te te te te te te te autorisé woo ko. kon war nañu mën a dépasser actuellement parce que information bu jàllee bu baax a baax war nañu mën a dépasser ci li nga xam ne mooy taxaw naan suuf si maa ko moom maa ko moom te yoroo titre boo xam ne moom moo lay waral wan ne yow yaa ko moom wala moomoo ko. waaw moom kay wax wax yëpp loolu la soo gisee coow ju bari ci affaire rek. ñii dañuy dañuy ñii dañuy taw yi dañuy taw yi fi ñu nekk fii ñuy jëriñoo dañ koy taw yi suma doom ñooy continuer jël dagal ko fii mu ko ni nag bés ko keneen soxlaa wala keneen ñu may ko ko ñu may ko ko mu ñëw pour def def def li tax mu jox ko ko coow bari moo tax souvent dañ def bon pour pour bañ bañ yëf yi yëf yëf yëf yi de waar ñi naxante ñi ñi nga xam ne jox leen suuf si si régulière ñu ñu ñu war ko jëriñoo. dañuy naxante gars yi am lu ñu leen bàyyil wala ñu mel noonu moom mooy affaire affaire affaire affaire ngor bi euh, man xaw ma ku am titre xamul xamul ko waaye xam naa ni euh, nee nañ ma état bi moo am titre bi moo am titre moo tax moo nangu jox waa ngor ñu jëriñoo def lii ñoom tam ñu def lii li ñu fa bëgg def yëpp mooy mooy li ñu woote équipement collectif mooy li nga xamee ni dañ koy def pour jëriñu population bi kii ca gendarmerie la boo xam ne dafay def mooy aar nit ñi lii terrain football bu xale yi nekk la fa la ñuy fa la ñuy fa la ñuy waaye bon euh, mais li am ci affaire suuf état su buggee am su buggee jël suuf euh, nit mënu ko tere yoon wax na loolu. ma ko normalement dinañ dinañ ñëw ci dinañ ñëw dinañ ñëw ci procé procédure boobu noonu. mais je pense que ne li ngay wax dafa am solo il faudra ñu ñu taxaw si benn benn benn benn point boo xam ne point bu am solo la mooy occupation. c'est-à-dire il faut nit ñi xam ne occupation boo xam ne bu yàgg la. nekkul nekkul titre il faut il faudra nit ñi moom ko. Mhm. dëkk di fa jëriñoo taxul ñu ñoo ko moom parce que bi loi bi ba ñu organiser suuf si yëpp. dafa am loo xam ne ni ñëpp ko bokk ak li nga xam ne yàq moom li nga moom nag kayit moo koy firndeel ah muy titre foncier wala muy permis de ko wala façon kayit daal boo xam ne dafay jóge ci administration bi ni kii Cheikh Diack yow yaa moom loolu moom am nga droit def lu neex ci biir kenn mënu ñu jóge fee ñëw jël ko sauf su fekkee ni nguur gi daf ko soxla pour loo xam ne njëriñ ñëpp la. boobu daf koy boobu daf koy. boobu daf koy daf koy jël. fay la xaalis. xaalis donc dafa am benn procédure bu muy utiliser nun koy nag doxalee je pense que dinañ ci ñëw pour mu gën a leer suñuy téléspectateur mais dinañ ñëwaat un peu ci li nga xam ne mooy mooy titre bi parce que sànq yaa ngi wax loo am solo cest ñi nga xam dañ doon jëriñoo li nga xam ne mooy suuf si donc si def seeni i besoin donc ba loi bi ñëwee daf leen jox délai mais délai boobu noonu jeex na bu yàgg maintenant ba tey ñoom ñu ngi occupé ce que am nañu possi am est-ce que am nañ possibilité ba tey jii nii nii donc avec ay compromis avec l'État donc mën a discuter avec l'État pour mën a am ay titres yoo xam ne mooy garantir seen occupation yoo xam ne yàgg na trop. en tout cas lu am wax woon mais en tout li amoon mooy même ñooñu may wax noonu ñu xam ne dañ jël ñoo euh, euh, euh, alentour village bi loi bi ñëwee tamit bi mu considéré yi nekk domaine national li li ñuy wax national mooy li nga xamee ni te suuf yépp nga xamee ni kenn moom ko nit benn nit moomu ko ak ñi nga xamee ni ay ay ay ay forêt la mooy di ko appelé terrain classé ak ak ak yu noonu ñi nga xamee nag ñoom fi ñàkkoon noonu dañ ko defar li ñuy wax mise en valeur dañ fa def affaire yu am solo ay investissement liggéey ko taxaw war daal yooyu ñu mën am nañu droit ñaan état bi pour ñu attribuer loolu parce que ñoom defar nañ ko mettre nañ ko en valeur te loolu tamit dafa am dafa am nu noo koy noo koy doxalee. yaa ngi condition mun nañ ci dem ci condition bi. waaw dafa am noo koy doxalee c'est-à-dire que su fekkee yow da nga defar fii ay installation yu baax ci booru kër gi yëpp ñëpp da ngay da ngay dem benn autorisation administrative yow ñu constaté ko xam ni yow def nga mise en valeur bi ñuy wax defar nga loo xam ne wax dëgg yàlla njëriñ la baax na soo ko defee nag. nga nga nga nga ñu constaté loolu nga bind administration am délai six mois boo xamee ni après décret bi jot di donné gars yi doon la mën doon gars yi doon doon doon la ko mën a attribué. doog la ko mën a attribué donc procédure boobu ngay ngay jàll après la après la mise en après la mise en valeur. après la mise en valeur. et loolu tam day continuer ba léegi. day continuer ba léegi domaine national bi tamit suñ la koy jox li ñëpp bokk suñ la koy jox dañ la koy jox. parce que dinaa ko fa def loo xam ne am na njëriñ ci yow sa njaboot wala wala ci ci ci ci ci po population bi te loolu tamit foog nga def ko soo ko def tamit dañ koy xool soo ko def su ko soo ko defee mise en valeur pare loolu la ñu mën attribuer ñu jox la ko tëfu defal la ko mu nekk bàyyi. loo ko sa tur nga doog koo mën nga doog koo mën a jëriñoo dinañ ñëwaat un peu sànq yaa ngi yor si domaine national parce que tamit bañ ko defee sànq yaa ngi rappelé la loi 1960 suuf si ba tey bombe la boo xam ne je pense que mi ngi ñuy rattrapé donc est que jotul aussi cette loi de ñu xoolaat ko wala xool nan lañ koy réglé waat donc pour régler le problème foncier fii ci Sénégal aussi. moom nga loi 64 bi euh, euh, ni dañ ko xoolaat effectivement moo à un moment ñu ñu defoon benn commission euh, nationale de du de la réforme foncière dénkoon ko euh, Doudou Ndoye man sax ci laa bokkoon en tant que représentant ordre des experts finalement commission boobu mu ñëwul fonctionné lu bari ñu bàyyi ko après je crois dañ ko jox monsieur Soura moo ko àggali woon def na def def na li mu def jox na ko jox na ko waa waa nguur gi waaye man déggaatuma ci dara waaye li wóor mooy ñu bari. am na ay ay ay ay luñ ci doon euh, lu leen neexul woon quoi waaw ah, suuf si ñuy joxe noonu di ko jox di ko jox ñoo xamee ni su su weesoo ñooñu seen doom mënu ko jëriñoo après duñ ko hérité et cetera et cetera après je crois am na yenn yenn texte yoo xamee ni daf ko daf ko changé c'est-à-dire léegi mën nañ ko jox groupement groupement bi yëpp ñu jox leen suuf si bari pour ñu liggéey ko te ci biir groupement bi sax. am na ñoo xam ne mënuñ mënuñ bokkaloo def affaire def affaire l'essentiel rek mooy ñu mettre ko en respecte li li li tax li tax li tax ñu jox leen ko quoi donc euh, bon euh, euh, suuf si moom. Hmm? waaw du yomb trop daal ñu parce que ñax xam bi daf ci bari trop quoi. c'est la désinformation. waaw ñuy bari daal dañu lu xam li li li yoon wax et cetera et cetera te itam ñoo xam ne du ñu xam yoon dañuy ñëw di wax ni nii lii la. wax la lii yow tam nga foog ci loolu nga nekk foog ni sa droit nekkoo sa droit loolu moo am problème loolu loolu moo jafe-jafe foofu est-ce que c'est pas c'est pas de la responsabilité de l'État nga xam ne moo war a mën a informer li nga xam ne mooy les personnes jël des personnes comme vous nga xam ne xam mën a def médiation bu waxtaan ak la population pour informer leen bu baax baax sur les lois foncières. am mooy bi ñu war def. Euh, nguur moo war jël ay pexem ci affaire rajo ci affaire ci affaire média yëpp pour mun ay émission yoo xam ne dañ koy dañu expliquer leeral nit ñi ci làkk yi ñu dégg waa ci tubaab bi leeral leen lu baax lii moom lii soo moomee lii nga def soo moom lii nga def lii lii alal réew mi la ñëpp ko bokk mun loo ko jël ak moo ko bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ñu ko bokkal dañ ko dañ koy dañ koy organiser dafa am noo koy doxalee pour ñu jox la ko yow yooyu yëpp information yëpp je pense que là, il faut utiliser, nous utiliser ay support de communication pour atteindre quand même euh, toutes les populations. Parce que mon. la euh, puis là, le, le, territoire n'est pas. <laughs> un Et il faut faire, il faut faire le, pour faire la communication à ça, il de a des zones où bon, ils n'ont pas accès à l'information, à, à, à, à l'information audio, etc., etc. Donc, euh, il, faut, il faut trouver d'autres moyens. Il faut trouver d'autres moyens. Par exemple, les représentants locaux de l'État, les maires, les, les, les, les représentants du peuple, ils peuvent organiser, ils peuvent organiser des séances d'information sur ces questions-là. Ça évitera ultérieurement qu'il y ait des, te mu am ay ay ay jaxasoo yu metti ci affaire ci affaire suuf si d'autant plus que cette cette situation bi nga xam ne dafay prôner la désinformation population bi xamul ñenn ci Sénégalais yi ñu comprendre baax les enjeux ñu ngi profité pour léser ñi nga xam ne aussi la population. loolu dëgg la loolu dëgg la am na ñoo xamee dañuy nekk di wër rek di jël ci suuf si yoo xam ne moomuñu ko dañ koy jël a pare dugal ci ay nit ñooñu jox leen cinquante ñu dem seen yoon musiba am comme comme comme comme affaire affaire yi zone yoo xam ne ni kenn war ko depuis les années soixante quinze avec le problème bi bi bi problème exode exode rural bi les gens jël ay suuf yoo xam ne ni xam nañu fii fii kenn euh, baaxul togg baaxul dëkk ñu defar ko jaay ko nit ñi nit ñi dëkk fa bi nga xam ne léegi nag taw bi dellu am na mooy moom mooy moom mooy moom mooy indi jafe-jafe yi nii. nit ñi nekk situation yoo xam ne wax dëgg yàlla. Euh, neexul ci xol sax di ko gis quoi parce que gars yi nekk ci ndox mu vert bi noonu bés bu guddeeg bëccëg ah, xale yi wax dëgg yàlla loolu moom loolu moom pexe bu ñu ci war a wut war na war nañ ci góorgóorlu bu baax. parce que su ma déggee tamit xaalis bi ñu waxoon defar nañ ko ci. Hmm. te ba léegi affaire nekk nii war nañu xool ndax ndax ni ñu ko defaree noonu jaar. war nañoo saytu bu baax a baax a baax. bilan bi ñu def nañ fi lii waaye ba te résultat yi amul. lu tax résultat yi amul. tey fa laay ñëwaat sax parce que tam y' a aussi les de l' comme lu mel ni urbanisme comme lu mel ni cadastre comme lu mel ni impôt et domaine ñooñu que ñu boo xoolee tam yenn zone yoo xam ne parce que nit waru fa dëkk wala ñëw def lotissement sans ñu am sax benn titre de lotissement ñi ñuy ñëw dëkk donc contrôle bi tamit est ce que. aussi ci loolu moom loolu moom moom mooy jafe-jafe bu mag bu bu bu bi am am moyen contrôlé. l'organisation urbanistique de, de, de, du pays. Parce que ça aussi, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Et euh, même quand, quand on voit certains aspects, par exemple, une fois j'ai entendu euh, des gens dire publiquement que hum, la, la, moitié des, des, des, constructions qui ont été faites, que Genoual Tabahin Tabakh, côté passe la Sénégal, amuñu permis de construire. permis de construire moom mooy moom mooy état bi fa lay jëkk commencé contrôler territoire bi nu mel ku war def warul def war def lii en respectant règles yi nga xam urbanisme ne nañu fii lii ma fi fii lañ fi war tabax fii sooy tabax lii nga war a bàyyi comme cour sooy tabax tam lii nga war def lii nga war def état bi amul woon moyen pour contrôler loolu moo tax ñu avoué publiquement benn émission nii cinquante pour cent des des des constructions qui la dans dans, dans la banlieue, l'ont été sans permis de construire. Déjà, déjà c'est là-bas. Là-bas, on sent d'abord l'absence de moyens de contrôle sur ça. A fortiori maintenant que euh, toutes les règles d'urbanisme dans tous les territoires, euh, c'est c'est pas simple d'autant plus que d'autant plus que ci loolu dinañ ñëwaat un peu décentralisation parce que l'État décentralisé woon na un peu ci li nga xam ne mooy le foncier pour que les mairies aussi am ci benn mainmise aussi mais je pense que dafa mel ni aussi les mairies aussi dafa mel ni ñoom it la tâche s'avère trop lourde. tout à fait tout à fait comme j'ai dit autour autour de Dakar la direction de la construction ñoom y avait quand j'étais là-bas il y avait trois trois personnels toute la la les situations yi permis de construire de passer à seen yëpp quoi c'est impossible d'abord les moyens matériels pour y aller cela pose problème ça il faut avoir le courage le dire la les voitures étaient là du ñu am sax moyen moyen pour a fortiori maintenant nag quand on quand on décentralise avec les communes à l'intérieur les gens et pourtant pourtant les les les les maires de l'intérieur et et et toute Mais ils auraient pu quand même pouvoir, comme ce n'est pas, pas, pas, pas des, de grandes distances, ils auraient pu quand pour, pouvoir essayer de, de, de voir, de, contrôler l'application des règles d'urbanisme dans leur zone. Mais je ne sais pas ce qu'ils font. <laughs> c'est en plus c'est paradoxal li ngay li ngay wax ni parce que dégg nañ le président de la République Macky Sall muy wax ne vraiment le foncier bombe la boo xam ne war nañ ko mën a régler donc mun ñu comprendre ko mu wax loolu en plus le manque de moyens bi nga xam ne moom la ñuy gis sur les structures de contrôle ak ñi nga xam ne ñoom a saytu affaire a baax. ça moom c'est mission pour defar ko il faut y mettre les moyens les moyens commencent par les moyens matériels ah ñu ne grand ñun. on on on on n'avait pas les moyens matériels pour aller pour aller pour aller comprendre les trucs. Et en général, quand quand les gens n'ont pas les moyens matériels pour les contrôler, quand ils vont contrôler les gens, et eh, les gens, ils, ils sont, ils sont, ils, ceux qui contrôlent, ils sont quand même vulnérables. C'est comme vous allez le dire. Parce que là, c'est des gens, ils sont niais, ils ont, on se permet de causer, oh non, gëstu loolu bu baax mel ni boo buñ euh, sur le foncier l'état ne contrôle rien non l'état l'état a des difficultés pour pouvoir quand même contrôler les choses euh, vraiment vraiment vraiment xoolal xoolal xoolal les les conditions anarchiques trouve partout que trouve partout dans les zones non non édificantes yi boo xam ne kenn war a fa tabax dañuy gis ni ñu tabax nga xam ne dañ guddi sa tabax et moo tax dama ko def continuer il faut forcément qu'il y ait des un suivi régulier et, et, et pour, pour le contrôle et ensuite sanctionner sanctionner surtout ça mm -hmm. en plus on a la DSCOS aussi pour pour mu mën a def sanction bi mais est-ce que DSCOS aussi il a assez de moyens aussi pour faire bon, la sanction aussi. bon je je je je euh, l'objet de la DSCOS je je je je vous disais que c'est c'est la surveillance il semblerait qu'on ait qu'on ait maintenant euh, augmenté le le. leur, leur, leur, seen seen champ d'application mais en tout cas ce qui est constant c'est qu'on voit partout arrêt d'escorte arrêt d'escorte et les gens continuent à les gens continuent à wax cela pose un problème il faut ñu xoolal lu waral loolu est-ce que ñi ñuy tere ñi leen tere ñi ñi leen tere ni mu waree wala wala wala ñu xam lu waral loolu ñu xool wala yaa wala wala y a des citoyens yoo xam ne au Sénégal ak ay citoyens yoo xam ne ils sont au-dessus de la loi rek fu nekk romb forêt chantier mu nekk bi bind arrêté espace te gars yi ñu ko délégué loolu man mënuma mënuma wax waaye xam naa ne daal war nañ ko saytu bu baax. war nañ ko saytu bu baax. xool xool luy loolu. Mhm, dinañ ñëwaat. waaw dafay yàq vraiment. njëriñ njëriñ des ko dootu doon njëriñ des ko dootu dootul dootul dootul am solo. waaw je pense ñëwaat nañ un peu ci Descos vraiment ci arrêt yi nga xam dañ koy gis alors que du am application mais aussi dina ñëwaat un peu si si sànq vraiment l' information ne passe pas l' état aussi maître des terres parce que sànq yaa ngi koy wax état moom moom moom suuf si donc mais à chaque fois bu bëggee def daal dañuy gis la population dafay révolte révolté wu ci aspect aspect boobu noonu je pense que loolu tam war a leer ci ñi nga xam ne mooy les Sénégalais aussi. waaw dafa am ñu am seen proof ñoo ko moom ak loo xam ne ñëpp ko bokk wala ñuy wax da da domaine hospital te comme nag nit ñi nag suñu nekk ci benn village dañuy nekk village bi gis ni gis ni euh, euh, àll baa ngi euh, rek ñu ñu ñu puus seen ay kër seen case tabax seen affaire wala yore ku ñuy ku ñuy ku ñuy def seen yi yàgg fa lool nag bés bu léegi nguur gi ñu rajo soxla ko nag. coow bari fii ñoo ko moom suñu maam seen nekkoon seen maam te du ñu wane këyit boo xam ne wala ñu ñoom ñoo ko bokk wax yëpp loolu la wax yëpp loolu la. donc te état vraiment moom mooy mettre des têtes la plupart des temps boo gisee li nga xam ne moom la ñu fay def ay structure la yoo xam ne collectif cest à pour le bien de la population du pour ñoom kese mais c'est le bien de tout le monde aussi. état en général suy pour defar benn muy domaine national muy dafay dafay jël suuf ci parce que daf koy daf daf koy defar loo xam ne ni njëriñ ñëpp la du nekk njëriñu benn benn benn wala ñaari mooy li ñuy wax utilité publique su ko su ko xoolal ba wane ni wala lii ñëpp la daf koy jël ñu xool li li nga fa amoon su fekkee ni amoon amoon nga fa dara yaa ko moomoon yaa ko moomoon soo ko moomoon kenn am kenn kenn doo def dara foofu yow yow mi nga moomoon. ñu xool li li nga fa defoon lu muy jar xayma ñu jox la ko nga dem bàyyi ñu def koo xam ne nag moom njëriñ ñëpp la nekk njëriñ benn nit rek quoi moom la wax procédure d'expropriation pour ci procédure boobu dinañ ci taxaw parce que wax nga ko dafa am solo cest à bu fekkee ne li nga li nga yor yaa ko moom dañ lay dédommager mais bu fekkee ne nag li nga yor moom moo ko doo am dédommagement. loolu moom parce que amoo droit parce que yu bëri yu bëri par exemple. Euh, ku moom si kër moom ñoo ñoo laaj la ko pour soxla ko pour defar ko pour pour pour pour pour pour pour njëriñu askan wi euh, mënoo si dara parce que njëriñu kenn ak njëriñu askan euh, euh, du méngoowul loolu l'état li mën def rek mooy da lay fay xaalis li nga fa def yëpp nga dem wuti feneen waaw. mais dañoo gis la ñi nga xam ne nag ñoom dañu ñëw foofu rek fekk foofu ah ñooñu état bi leen may état waru leen fay normalement. waaye nag gis nañu ci ay ci ci ci procédure boobu nga lay wax bi ñuy def ay dali foor ak ay pour autoroute beeg yëpp la vraiment euh, foofu euh, nguur bi def na fa ay yërmande ñi nga xam ne sax moo ngi yor ay kër euh, ba ci locataire ak ko looy woon ah, waxoon na ko dañ leen dañ leen jox xaalis pour mu mën dem wuti feneen waaw comme ça dafa doon yombal affaire yu bëri quoi. wax dëgg yàlla kenn daaw bariwul résistance kenn du wax doomu dem parce que fenn ñu leen jàpp. parce que jamono boobu ñuy wax waa Dalifort mètre carré bi ñu jar cent dix mille francs mètre euh, nga xam ne moom la état di jëriñoo pour suñu exproprier mu ngi doon jar trente mille xaw ma quarante mille même yemuloon foofu xam naa digg naa ne nguur dafa ni woon nañu jox gars yi ñu ko jar ñu dem comme ça du problème si lañ leen joxee fay leen mètre carré sur cent dix mille francs mètre carré sans compter tabax yi te bi ñu paree loolu aussi ñi locataire nekkoon foofu dañ leen may 6 mois équivalent 6 mois pour ñu mën dem xam nga yooyu itam c'est ay ay doxalin yoo xam ne day day day yombal affaire yi waaye soo ñëwee rek appliquer loi bi dans dans toute mën naa am ay jafe-jafe. mën naa jafe-jafe. doole doole yemuñu koo ñëw ne ko locataire nga ne ko génn tout suite xam nga soo ko joxee xaalis nga wuti feneen moom lay gën a yomb mooy gën mooy moom mooy gën a nooy ci li nga xam ne mooy les CV. moo tax bon yooyu yëpp am na ci euh, euh, psychologie démarche bi quoi. donc mën nañ jàpp ne à chaque fois donc état du appliquer li nga xam ne mooy les lois mais dafay trouver des compromis sociaux. waaw mën na appliquer loi mais am na koo xam ne boo xam ne rek bi ñu nekk autoroute bi Dalifort il paraît quand même Israël fait beaucoup d'efforts moom on avait exigé que dafa exigé woon ñu ñu ñu jox gars yi ñu ko jar quoi vraiment.